bi ci njëkk mooy bi président Abdoulaye Silla di débrouiller ci yenn entreprise di créer di jënd di jaay di dem à l'étranger néna problème bi mu jànkonteel bi gëna a bi gëna metti moy problème accès financement yi te dañ ko doon fatél fàttaliwaat démb bi ñi séti suñu mbokk yi si bi xotaan ne suñu yaay yi ñoom soxna Kumba Seck ñom soxna Loobe suñu yaay tok fi suñu bàjjan suñ fi toogee 3 heures ba légui diñu xaar suñu amone financement yu doy financement yo xamné ne mën nañ ci liggéey duñ fi tok 3 heures ba légui duñu xaar ñi ngi ci ñi ngi ci leneen financement président Abdoulaye Sylla depuis bi muy créé Ecotra il y a 20 ans ba légui ak suñu yaay ak réew mi fépp fo dem ak suñu Modou Bousso je pense que dem nañ def nañ plus d'une centaine de sorties fépp fo dem boo tàmbalee waxtaan laaj leen lan moo fi gën a diis sama frère Babou Sarr wax na ko sànq lépp loo song Sénégal problème financement ngay am et loolu dañ koy dañ koy joytu président Abdoulaye Sylla jafe-jafe bobu dañ koy joytu ba légui parce que dañuy dello njukkal bu baax président Macky Sall ak gouvernement am ci milliards yu bari yi nga xamné injecté nañ ko ci ci dëkk bi kenn du du ko weddi ndax lu leer la te ñoom mën nañ ko prouver que ci année yu ñu génn milliards yu bari injecté nañ ko ci côté financement mais njukkal boobu dafa am dafa am luñ ci toftal lu lu metti moy milliards yoy genn na xéne ci poche état bi wala genn na ci à l'étranger ñëw mais duggul ci poche suñu bàjjan yeeg suñu suñu frère su duggoon ci sen sen poche euh yaay booy tey doo leen toog fii dañu déglu heure bi euh 3 heures ba ba légui et loolu président Abdoulaye Sylla daf ko constater def diagnostic bi ñu saytu ko dem xol nan la nan lañu def ba nga xamné milliards yu bari yi nga xamné chaque année mi ngi soit jóge bitim réew wala ñing koy jël ci l'impôt société yu mel ne Ecotra lu tax milliards yooyu du egg si su poche suñu frères yi comme ñoom Babou Sarr ci euh, activité communautaire yi ñuy def wala ci suñu yaay yi def transformation. tey jii bëgg nañ lool pour recevoir délégation bii nga xamante ne nii moom la ñu àndil sëñ Modou Bousse Dieng jiite ñu ko bu ñu déggee tur bi rek sañu xel day dal sañu xel day dal ndax sëñ Modou Bousse Dieng ku ko dégg xam ne sëñ Touba maamam. fii nag béréb bi ñu nekk.

Ablaye Sylla mom nek si ruq bi di liggey mom lañ bëgg japp ci loxo bi buddi ko mu genn na genn ndax kuy def lu baax waroo nëbb kuy def lu baax waru la denc dañ ka wara genné mu fis si télé yi fis si rajo yi Ablaye Sylla na genn ñun takku nañ taxaw ànd nañoo mom képp ku ñu xam dinañ ko wax mu and ak mom pour que lu baax limuy def ñu valoriser ko ci dëkk bi dañuy jëm rek ñun managuñu dañuy jëm rek

wara am lo xamantene ne waccé mom yobul donc na ngeen Je si di Abdoulaye Silla aussi mu un homme de l'ombre mu un homme de l'ombre vraiment mais aussi carrément il existe parce que quelqu'un qui fait des actes mérite d'être connu dans ce pays parce que dañu bind l'espoir de toute une nation et que nous sommes une jeunesse et nous avons besoin d'un référent de quelqu'un bi nga maintenir. nous devons suivre leur pas pour que comme nous, comme madame waxee sànq former ay jeunes 50 et quelques milliardaires loolu mooy mbébétam donc nous, nous nous koy xaar ci combat en tant que jeunes. Seigneur. Modou yow dañ laa wóolu gëm la parce que sa m'a moo Olaf, olof tu vas tubaab jamais deux sans trois wax nga ko. nga ne sëñ Abdoulaye Sylla na génn te président Abdoulaye Sylla baabu Sarr wax na ko man maay troisième bi ana ñi wax ne na génn def déclaration def candidature am mu lancé ko pour nekk cinquième président du Sénégal ana ñu bëgg Abdoulaye Sylla ana ñu wax ne na ñëw mbaaw def investiture am donc sëñ bi ñu ngi lay yóbbante loolu directeur Assane Abdoulaye Sylla nee leen ko commune Diamaguène Sicap Mbao ak commune Mbao parce que man Diamaguène Sicap Mbao laa jógee ñëw ngeen fa tey am ngeen ñaari communes yi gën mag ci pikin nañ wax président Abdoulaye Sylla na génn ci coin na génn ci coquille bi mu nekk na génn mu def sa déclaration na organiser son investiture pour être le cinquième président du Sénégal loolu dañ doon koy yóbbante parce que dugg ngeen ci ñaari commune muy jamagan Sicap Mbao ak Mbao dañuy wax Sénégal boy dem ci élection so gagné Pikine gagné nga Dakar so gagné Dakar gagné nga Sénégal parce que jamagan Sicap Mbao ak Mbao ay commune la yo xamné bu nek amna plus de 80 quartiers am plus de 300 000 habitants donc lolu soko ko téyee bul ragal dara na ñew ñoo va accueillir la journée d'investiture mane Assane Sylla suuf si sa suufi maam la Dakar jaay nga cosaano Matar Sylla xari Joob ngone mbee nga yaay jal samaam Matar xari Joob Dakar jaay nga cosaano son su awatel noo tey awla na awatel noo tey fii sa suufi maam la lii mën naa ne yàlla jàmm yàgg